alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa asxaabi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi diin kon mbokki jullit yi ñu ngi dellu si suñu tafsirul quran bi nga xam ni ñu ngi woon ci suratu nisa xam nga ni ñu ngi doon wax fi yàlla di wax ni bu ngeen moytandikoo bàkkaar yu mag yi yàlla dina leen baal bàkkaar yu ndaw yi waxoon nañu tamit boroom xam-xam yi naka lañu gisee bàkkaar yu mag yi am na tënk buñ la ci defaloon tey nag ñu ñëw ci wax ji boroom bi wax ni wali kullin ja'alna mawaliya mimma taraka alwalidaani wal aqrabuun walladina aqadat aymaanuhum fa aatuuhum nasiibahum inna allaha kaana ala kulli sheyin shahiida yàlla ni wali kullin ñeel na képp jaal naa def nañu mawaaliya muy aji méngoo mimma taraka sa la mu bàyyi alwaalidaani ñaari wayjur wal aqrabuuna ak ñi nga xam ni way jege lañu mu ni wallazina ñi nga xam ni it aqadat fasu na aymaanuhum seen giñ ñoom it fa aatuuhum nañ leen jox nasiibahum seen cër ndax inna allaha yàlla kaana nekk na ala kulli shay'in lépp loo gis shahiidan yàlla aji seede la loola le mu ni arrijaalu góor ñi qawwaamuuna ala nisaa bima faddala allahu baaduhum ala baadi borom bi nee na li ñuy tuddee al ci kilifteef nee na loolu moom yàlla mi ngi ko teg ci loxo góor ñi loolu mooy ar rijaalu qawaamuuna ala nisaa yàlla nee na góor ñoo yilif jigéen ñi kon nit bu ko yàlla dénkee soxna li war ci soxna si mooy mu xam ni boroom këram boobu moo yor kilifteefam comme bi mu amagul boroom kër ni way juram bu góor amee woon kilifteefam noonu la ko boroom kër bi amee ginnaaw bi ko yàlla dénkee boroom kër xam ngeen ni kilifteef nag <clears throat> dafa bokk ci yi nga xam ni islaam dafa bëgg te dafa sàkku ci ku jigéen ki mu sàmmoonteeg moom ba nga xam ni lépp luy dàqante ak kilifteef doo ko def moo tax dafa am wax ju am solo ju ci benn boroom xam wax benn boroom xam wax moom dafa wax ni bu fekkee ni gis nga benn sëy bu am problème mu ni boo ñëwee ñu lay nettali problème bi li tax ñoom ñaar ñi dencante ñu am jafe-jafe mu ni déglul rekk ci ñaari tomb yi ban la si nee na bu fekkee ni bi ñu lay nettali li leen jotale dafa dellu si kilifteef ñu ni bu boobaa ku jigéen ki moo tooñ lu tax ndax kilifteef yàlla ku góor la ko jox ñu ni kon bu ñu nettalee mbir ma rekk nga xool ni mbir mi ci wàllu kilifteef la dellu bàyyil mu ni du bàyyi defal mu ni du def sa àndandoo bi ngay àndal na dakk mu ni du ko dakkal kër diw gi ngay dem bu fa dem mu ni mënoo ma faa teree dem nga xam ni yooyu yëpp ci wàllu kilifteef la day génn di dem te du tàggoo walla boog day yëglu day yëgle gis nga yëgle ak tàggoo bokkul yëgle <clears throat> jigéen bi koy def bu waree dem fenn day solu mbubaam parapare lépp ba pare door a wax boroom këram ni ko dama bëgg a dem place sàngam kooku day yëgle mu ni tàggoo nag boo waree def suba walla ginnaaw suba tey nga koy wax ba ñu jox la ci ndigal ba pare nga door a waaj mu ni nag kon saa yooyu lijjanti seen diggante mu aju ci wàllu kilifteef rekk mu ni soxna see tooñ mu ni waaye nag buñ la nettali li ñu jote ñoom ñaar mu dellu ci wàllu dundal wàllu wodd wàllu dëkkal wàllu faj mu ni bu boobaa jëkkër jee tooñ lu tax parce que yooyu waru ci xuloog soxnaam ndax si ndoddam lañu ko gàll bu ko defee loola nag la muy wane rek mooy li aaya bi wax ni ar rijaalu qawwaamuuna ala nisaa waaye tamit yonent bi sallallahu wax ni si xadiis nee na bépp kër goo xamante ni mbiru kër ga jigéen a ko yor mooy yor kilifteef ga nee na kër googu waa kër ga si rëccu rek lañuy mujj parce que lu tax mooy dañoo teg mbir mi fi mu teguwul dañ ko waroon teg mooy kilifteef nu góor manti mel moom la yàlla jox kilifteef waaye kilifteef tamit ci islaam dafa am nu ñu koy yore parce que doo yor sa paaka walla sa jaasi rekk ni yow yaay kilifa gi lu la neex nga dagg toujours li ngay def day laaj nag nga waxtaan ci ak soxna si donte yow yaay jël décision yi léeg sax bu laajee nga waxtaan si ak njaboot gi nga waxtaan si ak ñoom doon doonte décision yi si sa loxo la nekk gis nga kon loolu la yàlla ni ar rijaalu qawaamuuna ni sa góor ñi ñoo yilif jigéen ñi <coughs> léegi nag lu tax yàlla ni ñoo yilif jigéen ñi lu tax ban pouvoir lañu am si ji kaw jigéen ñi ba wax tax ñu war leen a yilif mu ni bi ma faddala allahu baadahum ala baadin ngir li nga xam ni yàlla def na ko ci ngëneel loo xam ni góor am na ko te jigéen amu ko nga dafa am lu góor am loo xamante ni jigéen amu ko am loo xam ni jigéen am na ko te góor amu ko ndax ku si nekk dafa am lu la yàlla bind ci sa mission bi ngay dox gis nga tey kër bu fa benn waay ni woon yulub sa kër ga lu mel ni benn agresseur wala benn sàcc fekk fa njaboot gi yëpp gis nga buy rey boroom kër gi lay jëkk a rey parce que lu tax mooy soxna yaak ñoom ñooña nga xam ni doom yu ndaw yal ñoom ñëpp ci ginnaawam la ñuy làqu ñoom ñëpp moom boroom kër googu la ñuy mettre en danger loolu mooy bi ma faddala allahu baaduhum ala baadi loolu bokk na ci li tax yàlla jox leen kilifteef mu ni beneen bi nga xam ni moo si topp yàlla ni wa bi ma anfaqu ak li ñuy dundale ñoom ñooy dépensé ñoo yore kër gi ñooy fay ndox ñooy joxe ceeb ñooy joxe diwlin ñooy wodd njaboot gi kon kooku buñ ko joxee kilifteef war nañ ko ko jox loolu mooy bi ma faddala baaduhum ala baadin wa bi ma anfaqu min amwalihim bokk na si li tax yàlla jox leen kilifteef la ñuy génnee seen alal di ko joxe bu ko defee nag jigéen ji tamit même bu fekkoon tey yàlla dogal na mu ëpp wërsëg boroom këram di génne alalam di joxe du tax mu nekk kilifa kër gi ndax am na lu yàlla def si ku góor gi loo xamante ni bii defu ko si ku jigéen gi waaye ñépp xam nañ tamit résistance bi góor di am si muñ loolale jigéen amu ko moo tax gis nga tey li ngay gis ay sëy yu bari yu yàqu fase yi bari ci àdduna gis nga tey bu fekkoon fase ci loxo jigéen la ko yàlla teg nga xam ni moom mën na fase boppam mën na tas sëyam kon bu boobaa ci la mbir yi gën a yàqu parce que seen muñ li góor man ci muñ ñoom mënuñu ko borom bi subhaanahu ni fa saalixaatu kon jigéen ñu baax ña xaanitaatun way toroxlul lañu yàlla ci jaamu ko xaafizaatun way wattu lañu seen jëmm leel xay bi bu seen boroom kër fàddoo mooy bu fi seen boroom kër nekkul bi maa xafidallaahu si ni leen li nga xam ni yàlla wattuloo na leen ko léegi nag bàyyi na loolu mu ngi ñëw si solution yi am problème yi am si kër gi lan mooy nekk solution ndax léeg-léeg comme li ñu la waxoon léegi nii la léeg-léeg nga gis problème am si diggante ñaari way dencante yi moo xam sa wàllu kilifteef la moo xam sa wàllu dundal la waaye daal réeroo am na bu ko defee nag yàlla solution bi mu jëkk a teg góor ñi la ko jox bu fekkee yow ku góor ki lii danga koy bàyyiloo sa soxna mu të walla lii danga ko koy defloo mu bañ wala kilifteef gi daal gis nga ni manqué na joxatu la cër bu boobaa nag yàlla ni yow la ngay jëkk a def mooy nga toog waar ko nga ook ngeen toog nga waar ko ci yàlla mais waar ko it xamal ko li muy def li ci nekk ci mbon mbon li nga xamante ni bii mën na ko sa am ci sànjum yàlla li mu ko mën a jural ëllëg nga xamal ko loolu d'abord loolu mooy jéego bu jëkk bu boroom kër gi war di def ci digganteem ak soxnaam bu problème amee mooy toog waxtaan waxtaan boo xam ni waxtaan bu dal lay doon yàlla nee na nag bu fekkee ni waxtaan nga mais gis nga ni seen waxtaan bi ba tey jurul dara borom bi nee na nga jël sa ñaareelu matukaay mu ne ñaareelu matukaay bi mooy nga nga gàddaay ko gàddaay ko sa kaw lal ba bul séqati ak moom mais gàddaay ko si ñàkk wax ak moom kooku may nañ la ko mais ñetti fan du ko weesu mais gàddaay si lal bi nag bu la neexee nga téye ko ay fan bu la neexee nga téye ko weer pour lan pour delloosi ko yàlla ni bu fekkee ni loolu def nga ko mais gis nga ni ba tey du solution lan mooy nan ngay def borom bi subhaanahu wa taala ni dóoral duma ko waaye nag yonent bi sallallahu alayhi nee na duma ya bu mu damm yax bu mu toj bu mu deretal bu mu génnee deret bu mu gaañ mais gis nga nag euh, ñett yi islaam indi nii xam nga yàlla dafa ni allah yaalamu man xalaqa wa huwa latiful xabiir ndax ki bind nit mën naa bind nit ba pare te du xam nit mënul nekk ki bind force mu xam li mu bind gis nga boo xoolee am na jigéen ñoo xam ni yàlla dafay indi catégorie jigéen ñi parce que jigéen ñu si nekk ak ak la nga xam ni moo leen di yar gis nga am na si koo xam ni boo toogeek moom bu ngeen waxtaanee rek amaana li nga bëggoon si moom mën nga ko am waxtaan bu dal gis nga moo tax mu jëkk indi boobu ni waxtaan leen ndax xëy na sa soxna bu fekkee dafa bokk ci jigéen ñi nga xam ni bu ngeen waxtaanee ak ñoom ñu mën a dal parce que ñoom boo leen waxee ñu dégg kon bu boobaa boo waxee mën naa dégg comme li mu aawiya daan wax daana wax ni man fu sama fu sama kàddu xaj fu sama kàddu doy duma fa teg sama yar fu sama yar doy duma fa teg sama jaasi buur la woon mais loolu la daan wax fu sama kàddu doy loo xam ni wax rek doy na si mu ne amul ah, mu ni du fa teg yar mu ni foo xam ni nag yar kese doy na fa duma fa teg jaasi c'est-à-dire du ma rey yàlla ni nag am na jigéen ñoo xam ni boo waxee ñoom rek ñu nangu loolu moo tax mu indi fan izuhunna na ngeen leen waar mais am na koo xamante ni moom wax ak moom du tax mu bàyyi parce que yàlla da koy nattu mën na am yàlla dafa koy nattu si moom dafay bëgg di am ak jonjoo ak boroom këram si waxtu wu nekk yàlla nee na am na jigéen ñoo xam ni loolu rek moo leen mën a yar parce que loolu moo nekk seen amour moo nekk seen bëgg-bëgg boo leen ko xañee rek li nga bëgg si ñoom mën nga kaa am moo tax mu indi kooku comme solution mais am na si ñoo xamante ni ñaar yii mu wax mënul si ñoom dara comme li la doon wax rek ki bind moo xam li mu bind gis nga am na si koo xamante ni force nga duma ko mu door a normal gis nga boo xoolee si say doom sax day am wala yàlla dénkee njaboot gu gu sakkan léeg nga gis doom yoo xam ni boo duggee ci ñoom si néeg boo waxee rek ñu dégg mais léeg nga gis si doom yoo xamante ni fi nga leen mën a jàppe dëgg-dëgg mooy nga téye sa poste si ñoom bañ te leen jox dara buñ la ñaanee nga gàntal leen bu boobaa boo leen ko defee rek li nga bëgg lekk nga gis ko ñu def ko mais am na si doom yoo xamante ni force nga utiliser yar pour ñu jub parce que moo tax yii benn bu si nekk am na catégorie jigéen boo xamante ni loola mën na laa yar am na ñoo xam ni boo leen waxee ñu dégg am na ñoo xam ni boo leen gàddaayee si tëddukaay yi li nga bëgg di nga ko am am na ñoo xamante ni nag ñaar yii faalewuñ si dara force nga ñu am lu ñu lay ragale pour ñu bàyyi li ñuy def loolu la borom bi subhaana wa taala wax ni walaati jigéen ñi nga xam ni taqaafu na da ngeen a ragal nu soosoxul na seen ak foñu maanaam ñu xëy rek takk seeni bagage dem yàlla ni li ngeen di jëkk a def mooy fa'izuhunna na ngeen leen waar na walla ngeen gàddaay leen sa fil madaaji sa tëdd tëddukaay ya na walla ngeen duma leen waaye fa in ataana lakum fa in ataanakum bu ñu leen toppee fala tabxuun fala tabxu alayhinna sabila bu ñu la toppee mu ni bul sàkk weneen yoon cest à boo waaree mu bàyyi mu ni bul jëfandikoo ñaareelu jéego bi bul indiwaat yeneen charge teg ni ko nangam mayoon naa la ko sax mais tey mayatuma la ko wax loolu yow la nga ko doon tere waar nga ko waxtaan nga ak moom bàyyi na ko jeex na gàddaay nga ko ci lal bi bàyyi na ko jeex na duma nga ko bàyyi na ko jeex na loolu la borom bi subhaanahu wa ni fa in ataanakum bu ñu leen toppee fala tabru alayhinna sabila bu leen utaat ci ñoom weneen yoon ndax inna allaha yàlla kaana nekk na aliyan ku kawe la yàlla kabiran ku rëy la léegi nag xam nga ñett yi mu la wax nii yépp nit ki mën na ko def ba pare te solution du am nit mën na waar affaire bi jariñul dara nit mën na gàddaay taxul ndaw si wëlbatiku mën nga ko dóor taxul mu wëlbatiku ndax mu boobaa lan mooy des mbokk yi pour ñu xam yàlla fa mu teg fase nga xam ni fase du dangay tëb rek dal si dafa am ay mbir yu jiitu muqaddimaat yoo xam ni danga koy def ba yooyu amatul njariñ nag nga door a yegg si pase yàlla ne bu fekkente ni def nga ñett yi baaxul mu ni am na beneen solution bu des bi des mooy nee na yónneel benn arbitre si mbokki ku ndaw si maanaam xoolal si mbokki ndaw si koo xam ni bii ku am xel la ku maandu la ku jub la nga oo ko ñëw nga xool yawit ci say mbokk pour maandu te am koo xam ni ku maandu la ku jub la ku ñime dëgg la nga oo ko mu ñëw kon am ngeen ñaari arbitre yow nga ñëw toog ndaw si toog bu ko defee ñoom ñaar ñu déglu yow nga wax li nga gis ci ndaw si li nga koy tere ndaw si wax li nga koy tere lu tax mënu kaa bàyyi bu ku nekk laayee ba pare nag nee na ngeen bàyyi ñaar ñi nga xam ni ñoom ngeen tànn na ngeen déglu leen ñu wax yàlla ni gis ngeen seen jotaay boobu bu fekkee ni ñaari côté yépp seen seen bëgg-bëgg mooy defaraat sëy bi mu ni keroog sëy bi day baax ñu amee yéene pour defaraat rek si jotaay boobu yàlla nee na dina baax dinaa dinaa participer man yàlla pour sëy bi baaxaat waaye nag bu fekkente ni yàqaalin tax a jóg tamit bu boobaa ñu xam ni mënatu la baax léegi nag euh, moo tax islaam daf naan la booy tànn arbitre si wet côté ndaw si da ngay xool ñi nga xamante ni ñoom ñu bëgg sëy bi am lañu parce que léeg nga dugg si ab sëy di ut soxna mais nga gis si biir ñu nangu bëgg sëy bi gis ñoo xam ni bëgguñu sëy bi am gis nga ñëkk bëggul nag booy tànn bàyyi leen fa ñi nga xam ni bi nga doon dox sëy bi ñooñu ñoo si taxawoon pour mu am tànnal si ñooñu yow it say mbokk ñi si meloon noonu bëggoon sëy bi am demal nga tànn si yàlla ni bu boobaa nag bu ngeen toogee bëgg a defaroo incha allah allahu subhanahu wa taala na defar seen diggante loolu la borom bi subhanahu wa taala ni wa in xiftum bu ngeen ragalee shiqaaqa baynihima wuute am seen diggante yéen ñaar nga ni ko waaw mu ni fabaxasu yabal leen xakaman benn arbitre min ahlihi si mbokki ku góor ki wa xakaman ak beneen arbitre min ahliha si mbokk ku jigéen ki yàlla ni ñaar ñooñu bu ngeen toogee ndaw si toog in yurida islaaha bu fekkee dañoo bëgg a defar yuwaffiqillaahi baynahuma yuwaffiqillaahu baynahuma yàlla dina dëppale seen diggante mooy li ñu la doon wax ni bu bo jotaay boobu bu fekkee defar la ñaari côté yëpp bëgg rek yàlla dina participer fexe ba diggante bi baaxaat ndax inna allaha yàlla kaane nekk na aliman di aji xam man di aji xereñ gis nga mbokk yi gis nga ñi yépp la islaam tëral ni jaar si balaa ngay yegg si passé ba tey ndaw saa ngi nekk fi mu nekkoon rek gis nga nag bu boobaa islaam ni la wàcc ko faseel faseel nga fase mu gàddu ay bagaasam dem seen kër bu ko defee passé boobu it islaam mayaat leen beneen temps pour ngeen mën a delluwaat si biir pase bi muy li ñuy tuddee ak fay li nga xam ni am ngeen lu diiru trois mois yéen ñaar mu sori la nga sori ko islaam daal di bàyyi pour yéen ñaar kenn ku nekk jàng ci soriyanto boobu lan la ko moroomam doon jariñ ndax xëy na ku jigéen ki bu demee seen kër am fa lu toll ci ñaari weer dina xam lan la ko jëkkëram doon jariñ jëkkër ji tamit bu ndaw si génnee kër gi dem diiru ñaari weer mu xool par rapport bi fi ndaw si nekkee ak bi mu fi nekkul dina tax mu xam lan la ko ndaw si doon jariñ gis nga moo tax passé boobu passé ñaareel ak passé ñetteel kooku solution la la islam di ut ba tey bu ko defee bu ngeen sori ba kenn ku nekk jàngaat sa moroom xam li la sa moroom doon jariñ yàlla ni bu ngeen mënee waxtaan ngeen waxtaanaat dellu siwaat ngeen waxtaanaat dellu siwaat léeg-léeg di nga gis koo xamante ni balaa muy sëy rek mu dégg baat boobu mu dégg baatu passé ba dem ba toog lu yàgg ba xam moom lan la ko jëkkëram doon jariñ jëkkër ji it léeg-léeg pour mu téye soxna si force soxna si sori ko ba mu xam lan la ko soxnaam si doon jariñ bu ko defee bu ñu ñëwaatee yàlla mën na dogalit problème boobu ñu doon bi leen wutale woon daal di fay jóge gis nga borom bi subhaana wa ni bu ngeen demee ba tey gis ni mbir maa ngi fi yàlla ni def leen deuxième ma mayaat leen beneen sens gis nga nag boobu bu la ko yàlla mayee nag mooy seen dernier sens nag ngeen demee ba booba nag léegi nag islaam ni bu ñetteel amaatee nag bu boobaa force ndaw si day amaat beneen boroom kër mais gis nga ba tey mu ngi bàyyi xel sëy bu jëkk ba boroom këram bu jëkk ba demal nga utiwaat beneen boroom kër mu dem utiwaat beneen boroom kër amaana waa ju góor ji utiwaat na beneen soxna si jamono boobu ndaw si doon sëy islaam bàyyi ko mu xool ku góor kii muy sëyal ak ku góor ki mu doon sëyal bu njëkk ñoom ñaar force ndaw si dina comparer si xelam ñaari sëy yi ban moo si baax ban moo si nekk intérêt moo tax nag bu génnaatee si ñaaree si sëyam boobu yàlla ne ko bu la neexee nga delluwaat sa sa jëkkër ju jëkk ja parce que kon mbokk yi lii mooy tekki yonant bi sallallahu alayhi wasallam li mu waxoon si hadis ni li yàlla daganal li mu si gën a bañ mooy fase mu ni nag euh, kon wa in yurida islaaha bu ñu bëggee defaroo rek yoo fixillaahi baynahuma yàlla day dëppale seen diggante ndax inna yàlla kaana nekk na aliman di aji xam yàlla xabiiran aji solo la li ngeen di def léegi nag bàyyi na loolu mu ngi ñëw di wax ci bàkkaar bi gën a rëy ci bàkkaar yi te mooy bàkkaaru bokkaale yàlla mbokk yi bokkaale yàlla te bokkaale yàlla mooy li yàlla moom jagoo ko nga am lenn loo ci jël jox ko mbindeef loolu mooy bokkaale si tënk mooy bàkkaar boo xam ni tamit yàlla nee na bàkkaar yépp mën naa koo jéggale ba mu des bokkaale inna allaha la yaxfir an yushraka bi wa yaxfir ma duna zalika liman yasha yàlla dina jéggale bàkkaar yépp waaye nag bokkaale yàlla mënu koo jéggale te gis nga loolu am na si misaal bu mu ko joxe yàlla ne na li tax mënuma ko jéggale lu yomb la mën naa leen di jox misaal buy wane loolu ndax xam nga tey muy ni kenn si yéen bu amoon benn surgaam surga bi nekk sa kër di la liggéeyal ngeen def contrat yéen ñaar gis nga surga bi si biir contrat bi mën na yàq lenn si liggéey bi nga jéggal ko mën na ab absenté nga jéggal ko mën na juum nga jéggal ko yooyu yépp surga bi mën naka def nga baal ko yàlla ni mais imagine leen tey bis boo déggoon sa soxna boobu nga takk soxna si yëkkati kàddu ni lay yow yow sama boroom kër yaag sama surga sa surga bi yéen ñaari yéen a yem si man yàlla ne na loolu moom du bokk si li nga xam ni dinga ko mën a jéggal surga bi te pourtant tooñ na la ay yoon nga jéggal ko mais gis nga bii mënoo kaa jéggale yàlla ne nag te pourtant sama bos a gën a garaaw ndax yow surga bi contrat moo leen boole man nag ki nga jël teg ma teg si sama wet man yàlla kooku sama jaam la man maa ko bind li mu man yépp man maa ko ko mënal kon nag waabudullah jaamu leen yàlla wala tushriku bihi shay'an te bu leen ko bokkaale ak lenn kuy giñ giñal si yàlla kuy def machia bu soobee yàlla kese yonent bi nee na man kaana xaalifan fal yaxlif billah aw li yasmut képp kuy giñ giñal si yàlla te nga noppi coobare yàlla kese macha allah waxda benn waaye ñëw na ci yonent bi ni ka macha allah wa shiit bu neexee yàlla ak yow yonent bi ni ko bal macha allahu waxta bu neexee yàlla dong ndax xam nga nguuru yàlla gi li muy rëy rëy rëy baat boobu moo ko ëmb almasiya muy coobare yàlla nguuram loolu rek moo ci nekk mooy li ko soob mu am li ko soobul bañ a am loolu mooy nguuru yàlla moo tax baat la boo xam ni bu oyofee si làmmiñ du lu tuuti sa yàlla ndax lii am lépp yàlla lay soob li ñàkk am yàlla la soobul loolu mooy nguuru yàlla gi lépp baat boobu fi la ko yàlla tënk mu ni moo tax nag baat boobu borom bi subhaanahu wa taala kenn rek lañu ko war a jagleel te mooy borom bi subhaanahu wa mu ni kon wa abdullah wala tusirku bi shay'an jaamu leen yàlla te bañ ko bokkaale ak leneen kon nit bu bëggee àllaahiram baax day jaamu yàlla te bañ kaa bokkaale boo bëggee sa àdduna baax dangay liggéey te bañ a yàq liggéeyal bañ a yàq sa àdduna baax jaamul yàlla te bañ kaa bokkaale sa allaaxira baax kon mbokk yi lii mooy suñu darsu tey bi nga xam ne indiloon nañ leen ko ci tafsirul quran ci suratu nisa wassalaamu aleykum wa wa barakatu بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا